Elhadji Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la xëyandoo coronavirus kott nañu galgal ñu yéenekaay bi di xam ne di xeeb yéenekaay gi di laas di xamal ne moom kay xeeb sa mu lakk sa daag démb kay ñaari nit ñoo faatu ci diir bu gàtt gàtt tey nag jàngoroy covid 19 gi moo ko waral fekk jamono joojee vox populi di xamal ne kay jamono ji kay réewum Sénégal ak tolluwaay gi ci lii nga xam ne daal li nga xam ne daal mujj nañoo faatu tey nag jàngoroy covid gi daal di yóbbu ñoom ñaar ñooñu daal ak lu mën a xew amoon nañ ay jàngoro yu doy waar yoo

xam ne askan wi war nañu ko jot Mansour Faye ma nga gi duñu xamal ne Mansour Faye kay jàmbaar dëgg la donte kay jamono ji coow lii nga xam ne rek moo ko topp bokk na ca moom kay la mu doon goro njiitu réew mi Macky Sall Walfadjri yéene duñu xamal ne mbas meeg ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci kujje gi daa mel ni kay jamono ji pataaral gi la maye maanaam daal daa mel ni dañoo noppi yéene gi duñu xamal ne yéene gi mel ni ku naan ko kàccet fulewul xaalis goo xam ne rek dañ ko doon seetal yéene kay gi dañu xamal ne kaso ji nag lu jëm ci feetu Korité gi nga xam ne rek moom la doon mal boo moytuwul nag maanaam daal Sénégal yu bari danañu redoubler maanaam la soloon daaw wala sax la soloon daaw jéeg moom la ñu la ko waral moo di maanaam daal ñàkk gu metti goo xam ne am na ci covid gi dikk gën koo yokk yéen i gi duñu xamal ne boo moytu kay korite gu doy waar la ñu nar man nag li ma ci xam moom xam naa ne daal booy njaay du redoubler aaruna siise du redoubler ña ca des nag xam naa ne waxuma la redoubler waaye boo moytul dañ leen di dàq sax nag far benn ba suba